wal xaaji Tidiane Niang nga xamante ni ñoom ci wàllu cellule culturelle ñoom ñoo yore wàllu exposition bi ci wàllu kër gi ci lépp loo xamante ni document la ak archive boo xamante ni dafay melal jaar-jaaru mag ñi tabaarakallahu ñoom ñu ànd ko ak seen mbokk yi yéenu ko seqal ñoom Ousseynou ñoom Fodé ak ñoom Ahmed Sy ñoom ñëpp ñu ngi leen di feeñalal can rawatina nag sunu doomi bàyyi bii nga xamante ni bàyyi eh, sunu bàjjan soxna daba ak eh, góor gi eh, Ibrahima Diagne ñu gën koo xam ci Ibba jaañ ñu ngi àndandoo ak ñoom tey ci bis bi nga xamante ni kenn ku ne li li li Serigne Cheikh waxoon Serigne Babacar ni ko nachaata ولم يدرك مجالك مدرك أصبح كل واقفا بمجاله ñun ñëpp kenn ku ci ne fa nga nekk la nga fa nekk di def yaa ngi koy defal sëriñ Babacar ci majaalam nga nekk bés bu jotee mu soxla la ca loole woo la utiliser la lam la ca soxla bu jeexee mu bàyyi la ñoom ñi ñëpp ci loolu la ñu nekk yàlla na leen yàlla fay te seen barke maam yàlla bu mu leen mooy benn yoon sëriñ xasan si ñoo bokk àndandoo jóge Tiwaawan di bëgg doom ci bàyyi alxaaji si amina tabaarakallahu sunu nijaay alxaaji abdou dramé ñoom la ñu àndandool fekk fii sunuy mbokki taalibe sunuy mbokki pas-pas sëriñ xabib si eh, sànq sunuy jigéen soxna fat si sëriñ soxna ndeyasu rawtina sunu jigéen yi nga xamante ni seen wéyjur nga xamante moo cheikh eh, sëriñ Babacar la woon ci plateau gi tabarakallahu ku ne xam na ndiireen moom bu ñu ko tuddee sunu wayjur wa di sunuy mag di sunuy soppe ñoom ñëpp ñu ngi fi El Hadji Souleymane Pay Bili léegi la fi jóge ànd ak Baye Mademba Thiam nga xamante ni ci wàllu koskaas ak wàllu eh, jeunesse malikite ñooy àndandoo di ko yëngal rawatee nag sunu mbokk male may séen nga xamante ni maak moom ci ndakaaru yàgg nañu lool nu bokk jàngandoo ca Delafosse bokkandoo taxawal sunuy dayira ca école yaak lycée mu di Mamadou Gaye moom it ñu ngi koy bége ci teewaay yi nga xamante ni ah kenn ku ne fa nga boof rek yaa nga fay boof di defal sëriñ Babacar Sy ak Seydil Hadj Mali ak seen njaboot la ñu bëgg nu sant dayratul muxtafina di nu bokkal sababu tarbiya mbokk yi nga xamante ni ñoo féete fii ci Dakar ak li ko wër diggante mbokk yële jógee Gueule Tapée université section universitaire bi ak euh, mbokk yi jóge Médina ñoom ñëpp àndandoo nañu ak mbokki ak yaay yi nga xamante ni ñoom ñëpp seen dëkk bële ca Bawol at mu jot maa fay dem

ah eh, xew-xew yi nga xamante ni rek mënul ñàkk ñu di ko boolewaale ci biir jëm ci wàccaay moo xam ziar général ba gàmmu ndar képp ku aju ci sëriñ Babacar si rek nga war ko bàyyi xel waajal ko mu ngi ci kanam incha allah ci weeru mais bi ñu jëm la ñu nit nu di ko bàyyi xel nu ngi baalu àq ñëpp ñu ngi ziar ñëpp nu ngi ndokkeel ñëpp sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom lañu ko séqal te léegi Pape xalifa wax ko euh, Seydi Anne ku ne xam na taxawaayam ci biir xadara Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour te euh, yamul ca moom rek léppi Serigne Babacar léppi Seydi Hadj Malick moo nun lañu magaloon ci daayira bi lu ñoom Pape di def sàkku ñu ñëw teewe ko ñoom ñu ñëw teewe ko rawatina colonel bi fi jóge bokk ak nun li mu bokk ak nun waaye surtout féete Serigne Mansour fa mu ko féete ci wàllu protocole ba ak taxawaay ñoom ñëpp ñu ngi leen di feeñalal cant ci teewaay yi ak ku fi rot si rawatina Seydou Nourou bi nga xamante ni la dem moom tabaarakallah taxawaayam ci fa mu nekk wax naa ni bu ne boo demee buntu raw du sëñ gis xale ya taxaw di xaar naan paa xaalis paa alxemes lañ ko tudde paa paa alxemes la ko xale yi daara ji yépp tudde ndax alxemes bu ne dana rot si ca pénc ma bu demee ziar Seydi Haj Malik ak njabootam nga mu fa tëdd Cheikh Mouhamadul Mansour Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabba Cheikh Mouhamadul Habib bu fa jógee ñëw ci raw du sëñ Babacar bu dikkee nag xale yi dañ ko fay xaar mu di leen distribuer la mu leen di distribuer ci xaalis ak euh, mbiskit ak tàngal ak lu ne tabaarakallah te loolu wax dëgg yàlla itam ndaw du ko fàtte euh, day des lool yàlla na ko yàlla saxal teranga ak sutura defalaale ko képp ku fi teew ku ñu mën a tudd ak ku ñu mënta tudd bég nañu lool rawatina nag sunu mbokk mi di euh, xawma ñoom la woon El Hadj Youssou Diop njabootam Daouda Maxtaar Momar moom mii nag di Daouda tabaarakallahu di borom itte e lii nuy nekk saa su ne sànq rek lay wax ak benn mbokkam ca Tiwaawan ma di ko seedeel ñoom ñi seen taxawaay ci xadara bi ca Bordeaux ca France ca Lyon ñu nekk fa di jàng te suba su ne Tiwaawan la ñuy fanaan fa la ñuy yendu ci la ñuy gontu te yàqalu leen seen jàng ba ñu dellu si waat fii ci senegal yal na leen yàlla taxaw te mottali seen mébét way ci ñoom ñu ngi leen di bége lool di ko nag yemale foofu Ahmadou si nag Pape daf ma ni mënuñu koo sant ndax ci daayira bi la bokk naam waaye nit dana bokk ci mbir te doo ko jox nag itte ba moom defe naa ku ko xam ku ne xam nga itte boobu ci moom lu mu bokkul sax bu ñëwee dana ci jël cër ba nga foog ni moo ko moom te da cay def lu ko ca war ci cawarteem ci mbaaxam ci disponibilitéem ci taxawoom faggoom loo ni bëgg naa ko danga gisul Amadou Sy boo ko gisee dana fexe ba nga am ko te loolu itte la lu mu dégg nga jàmmat ko bu ca mënee dara dana ko dox dana ko dox ba nga foog ni kii yëfi boppam lay doon suba soo ko gisee muy waaxu ci mbedd nga foog ni soxlay boppam lay dox doxul soxlay boppam soxla mbokku taalibe buy bëgg a loru wala bu am itte mu de te nag booy dox sa aajooy mbokku taalibe mais yow yàlla dootul dootul dootul tardel sa mbir allahu fi awni al abdi ma daama al abdu fi awni axi yàlla na ko yàlla fay Dout Sall nee na daf ni woon dana ko defal une mention spéciale nee na jox ko une décoration ngir taxawaayam moom mi ci biir xadara bi ne man nag maa ko ci wuutu kon nag mu ngoogu mention boobu mu la bëggoon a defal yaag oustaz euh, Ousmane ak Mam Mor ah euh, Serigne Mor ñu ngi leen di feeñalal mention spéciale bi yéen ko yóbbu gannaaw nag ba Mansour ak Pape jiitoo ak waa daayira bi nga xamante ni ah ñoom ñëpp tabarakallah équipe la ñu rek di relayante sur le terrain ku ne ak taxawaay bi te keroog ba ngeen ñëwee ci waawa nee naa leen da ngeen a créer daayira ñu inscrire leen eh, ci ci ci ci agenda wu xadara bi inscrire leen nit ci registre sëriñ Babacar Sy na ngeen fonk seen daayira te organiser ko te bañ koo saggane te lañ leen ca joxoon muy cëslaayu liggéey ngeen di ko topp te bañ a topp caaxaankat yi ba ñu dévier seen liggéeyu daayira keroog loolu laa leen wax ci Tiwaawan ni leen nag lii moom jib na ba pare mag ñi inscrire nañ ko ba pare kon nag na ngeen ko def te lii waxuma ko sëriñ Abdou ma ko wax dama ñëw ni ko nun day sunu daayira dañ ko fee tegoon mu ne lu tax ngeen di ko fi teg te ñu joxoon leen bind leen ci registre mag ñi mu ne xanaa xamu leen ni daayira yi bu ñu ci joxee rek bind nañ ko ci registre mag ngeen bokk ci liggéeyu mag kon nag bu leen ko sàggane bu leen bàyyi téye leen rek lu mu naqari naqari naqari dëgg rek moom mooy jiitu ak lu mën a xew li ngeen nekk di def na ko dëgg gi lal rek bu leen ci booleel la neen su ngeen demee ba jaaxle seen kilifa ci kër gi moom lañ leen booleel te ku nekk kañ ko booleel yéen amuleen pexe kii lañ leen booleel muy sunu pap pap Sidi Ahmed lu ngeen di def te bëgg ko ci àqu Sëriñ Babacar ci moom ngeen koy amee bu ngeen ko jaarul ci moom bu ngeen demee Sëriñ Babacar rejeté leen kon topp leen boobu taxawaay topp leen boobu joxeñ liggéey leen seen liggéey farataal leen seen daara seen daara fonk leen xam-xam bi fonk leen tariqa bi ñi ci jël tariqa bi nañ koy dundal di ko jëfandiku bu leen am benn kersa ci feeñal seen tijaanité bu leen am benn kersa ci feeñal ni ci xadara bii ngeen bokk ku leen gis na leen gis ak loola ak fierté ga lu ngeen di wut amaale kook moom lu ngeen ñàkk ñàkkaale kook moom te seen maam yi duñu leen seetaan te xam ngeen ni duñ leen seetaan fu ngeen mën a dem ba dellu siwaat bu ngeen dikkee fekkaat leen fi rek ñu téye leen téyel leen waaw ñu téye leen téyel leen yàlla bu daje bi nekk suñu mujj daje yàlla nañ ko fi daje ay at yu bëree bëree bëri mu gën a rafet suñu bàyyi yi fekke ko ñu di leen bége lool di feeñal seen orma lool ndax nag du ko am bàyyi nekk ci lii mu fekk si la ci boo ca amee nag boo xamante ni de ñeewanteem ak yërmandeem tax na euh, toogaay ba sax mënu ko ngir wéradéem waxatuma laak warteef ya ci awraat ya warteef ya ci alquran ja warteef ya ci daara ji warteef ya ci njaboot gi mu bàyyi léppam ñëw lu ne lala ko may war nga koo xam nga góorlu ba dootu la rëcc yàlla na yàlla bàyyi leen ci sunu kanam rawatina nag sunu grand bi nga xamante ni ah moom sunu lépp la wax dëgg yàlla sunu jaam la sunu soppe la sunu waxandoo la sunu conseiller la lu nu nekk bu ko gisee moom kañ li koy dérangé mooy nga nekk ci loo warul a nekk ba mu yëg ko koo mën a doon mu wax ko koo mën a doon rek mu wax ko ci dëggoom googu ak jàppaleem googu ñeewante moom it na ko yàlla fay alxaaji dut sal yàlla na la yàlla fay yàlla na yàlla taxaw wax dëgg yàlla wétte li nga nu gungeen nga nu jàppale nga nu itam jàppale kilifa yi rawatina ca ñoom loo yëg ci ñoom doo am jàmm tànk lijjantiwuloo ko ba mu leer ci ñoom kuy wax ci ñoom bu la dégg boo ko dégloo bu waxee lu jëm ci ñoom yaa ngi koy préparé waaw saa su ne yaa ngi téléphoné di lijjanti sa nijaay yële ca kër ga di seet ci lu ñu nekk lu ñu nekkul ana lan mooy seen euh, aajo ana lan la njaboot def lu jaaduwul ci ñoom loolu nag te ñoom ñëpp nga ko ëmbal ñoom ñëpp nga koy defal yal na yàlla fay la sa taxawaay ci seen wet nu rek delloo ko kon kàddu gi balaas bay Mansour Diop ñaan nu ñaan yeewiku ba yàlla mayaat nu yeneeni jataay kenn ku nekk ci ñun jàng fatiha ak ñett salaatul fatiha ñu dugal ci mbooleem li sëriñ Moustapha wax ci yéene ci ñi ne fi ak ñi fi newul اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفر لنا وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حوائجنا وحوائج من أسند إلينا حوائجه فقديها وتعلم مهمتنا فاكفيها وتعلم أمراضنا فاشفيها وتعلم أمراضنا فاشفيها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 هو الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق نصر حق العقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله قَالَ عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون